muhammadu abdalahi ax nii bi mustawa ñadaa xiiru ak ñay mat seen gëñ ya foq nañ sa bawkat yi seen gémmiñ yi saañ nañ ko mustawa ñadaa jabar ak ñadaa xaatima ñadaa luxus yalax nañu seen xam-xam ya far toppi mustawa sigil te weytoo madru yi tuub nañ ci yow bu wér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 ci waaw mbaa ci waawaaw mbaa ci woowoo nga tollu tey ku ñëw rek ku jëkki jooy ndeyaa doon Mustafa wolof nee na bi yàlla moo gën bu nit di def defoo kenn deful yàllaay borom kun fa Mustafa wolof nee na am xel nangu dem téléphone nelaw ku am xel na ànd ak dem wuy ji Mustafa la Seex Bamba noon waa réew mi yàlla ma ku dib dof na tuug ni xel wa dew fekk Mustafa Sëriñ Bamba tuubal nan la ñëw nan bi jaayikum salaaw dootu nu dellu wel nan ci Mustafa ndax ganaar ak nenam yaag siqiya cuuja kulluhum borom gàmb baa moom lépp naaw tal nu Mustafa Cheikh Mustafa mi maay mujjisaatam fardi lamiñ wa koy waxal wa kallama rabbul harsi Musa bi Mustafa lu jin njaaga bambay njaag te mooy njiin fa Mustafa ku nag jikkoom war naa liggéeyal si Mustafa cheikh moustapha gee jum gëneel waaju ak duy ku bay xondooj yaa tey ma ngay wal fa moustapha ndoxo maa ngi wër tuuba batum aynu rahmatin waxay nuuri daa dem leen dëkkee ki sayqi moustapha ma nga yeesalaa tuuba bi tëjdiidi diinihi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 بعد باطن عنايته قبل الولاية مستوى كلي مباكي واكو كيك لغان دام ديكر ndeyam ña doon kaañi kankaan ba koleeram fa mustawa kulo wasra boo dex gaangi fengat to dootu daay sëriñ bi di barul juudi nuur leen fa mustawa